alhamdulilahi rabil aalamiina wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illaa ala zaalimiin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli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 nangul ñu lépp rek lu ñu ko jaamu xam ngeen ni ñu ngi yéen seen saar bu am solo bi di surtu zuxruf jotaayu tafsir bi ñu mujjee def ak yéen saar bi di surtu zuxruf amoon nañ ci ci ay aaya lu tollu ci ñeen fukki aaya ak juróom ñu war a jël ñeen fukkeelu aaya ak juróom benn quarante cinq verset amoon te ñu war a jël quarante sixième verset bi ñu fi jógee nag borom bi subhanahu waxoon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko laajal gaa yi fi jiitu woon ndax ñoom ñii ma fi yoon noon am na ci kenn koo xamante ni dama ni la woon soo demee nanga wax ni nañu jaamu leneen lu dul yàlla laaj leen ñoom benn mbir lañ fi mës a indi rek o abudullaha ma lakum min ilahin xayr jaamu leen yàlla amu leen beneen ya keneen ku ngeen mën a jaamu ku dul suñu borom ñoom ñëpp benn wax jooju lañu wax loolu lu leer la loolu am solo la borom bi nag indil ko nag misaal ni ko wala qad arsalna Musa bi ayatina ila firaana wa malai nee na ko maa yónni woon yonti yàlla Musa jox ko samay kéemaan ak samay lay yu bir ci kan ci firawna ak gàngooram ak peuple ci laa ko yónni woon fa qaala musa bi mu ñëwee nii inni rasul rabbil alamin man dey ndaw laa waaye ndaw laa loo xamante ni ki ma nii mooy borom mbindeef yi Moussa lii la wax Firawna ak waa kër man dañ maa yónni waaye ki ma yónni mooy boroom mbindeef fii moo ma yónni ni nañ ko jaamu te mu ci jaamu keneen mu ni Moussa wax ba pare waaye mu ni falamma jaahum bi ayatina ba mu leen indilee samay aaya samay kéemaan wax leen ko ba mu leer idaa hum minha yadhakuuna ñoom de dafa mel ni dañoo préféré woon toog di ko reetaan ak di ko di ko di ko yëj ak di ko saboote am na ñoo xam ni loolu seen mbir la di am ñoo xam ni képp ku leen di waar dañ lay saboote ñu toog fee ci yow mu xool ko mbaxanaam dàllam yàgg kii amul leneen lu mu war a lijjanti lu naan day waare tubayam ju gàtt jaag bologam bu gàtt baag tilimaayam baag di la wax yu garaaw a te loolu rafetul jaaduwul waaw ah, jaaduwul yonent yàlla Moussa dafa mel ni moom nitam ya kon dañ ko doon saboté di koy yëjji di ko wan ni ko wax dëgg yàlla ñun de <laughs> yi nga intéressé wuñ sax nag daf ñu sax intéressé wul nag pour ñu gàttalal la bu la doon gàttal dañ lay wax ni la ñun yii nga ñuy wax nekkul lu ñu intéressé di ko saboté di ko reetaan di ko doyadil bay wane sax ni Moussa jibarkat la teewul rek musa continué di leen wan lim leen di wan mu ni wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uxtiha nee na amul benn kéemaan bu ma leen di indil wala benn punition bu ma teg seen kaw wala benn mbugal bu ñëw dal seen kaw lu dul ni ba ñëwaat moo gën a garaaw bi fi jóge illa hiya akbaru min uxtiha maanaam bu ma leen indilee dara mbugal tey jii ñu wax wax ba ma bàl leen bu subaa ba may indiwaat moo gën a garaaw bi fi jóge woon loolu am na boo xoolee tuufaan baak jaraat baak xummal ya moo yooyu fa jaaroon yëpp maanaam mbënd ma fa jaar ak kirike yu bari ya soccet ya nga xam ne loo ubbi gis ko ca teeñ ya ca ci lekk ak yu doy waar yooyu nga xamante ni neexu la sax nettali nee yooyu yëpp jaar na fi ci seeni mbir waaye waaxaznaahum bil adaabi laallahum yarjiun yàlla nee na saa sune rek dama leen di jàpp ci mbugal ngir loolu man leen a xalaat loo xeetu mbugal bu nekk indi naa leen ko ngir ñu def repentiru def euh, tuub dellu siwaat seen boroom loolu laa bëggoon ci ñoom ma bëggoon ñu tuub xalaat def prise de conscience moo waraloon mbugal yi ma leen doon indil pour loolu yee leen ba ñu ku wëlbatiku teguwaat ci yoon wi baax loolu laa bëggoon ci ñoom mu ne mbugal nañ leen na xeetu mbugal bu ne pour bëggoon lool rek waaye teewul ñu të mu ni wa qaalu yaa ayyuha saaxiru du lana rabbak waaw firawna ak i nitam di minimiser yonent yàlla Moussa naan ko yaa ayyuha saaxiru yow bii bi déggal jibarkat lañ ko jàppe ko xam ne jëru wet di ko sànni muy dooni jaanaki di def yu kenn xamul ku la xool sax xam ne jibarkat nga léegi bu ñu leen tegee bu mbugal ñëwee seen kaw au lieu que ñun ñun ko yaa ayyuha rasul waaye dañ ba léegi dañu dëgër boobu naan ko yaa ayyuha saaxir yow jëbalkat bi udu lana rabbaka wool ñu sa boroom ñaanal ñu ko bi ma ay indak ci li mu diggee ak yow du nee nga yow kat yàllaa la yónni yàlla sa xarit la yàlla sa lii la yàlla sa laa la léegi dañu bëgg yàlla moomu nga ni nii la mel ak yow ak nee la mel ak yow dañoo bëggoon nga woo ko woo ko soo ko woowee de ñun dinañ topp ñun dinañ nangu ñun dinañ comprendre li borom bi bëgg te dinañ ko ko doxalale ni mu ko bëggee kon dañoo bëggoon nga woo ko comme ne nga yow am ngeen relation inna naa muhtaduuna inna naa la muhtaduuna nga waaw waxuñu inna naa duna waaye la muhtaduuna soo woowee yàlla ñaanal ñu ko mu dindil ñu yii ñun dey kon dinañu bokki ca ñay gëm loolu lañ ko wax dinañ la gëm xam nga bu ni ko woon innanaa muhtaduna day doon loo xamante ni lu automatique lay doon maanaam kon bu yàlla ñëwee rek dañoo war a ñëw waaye dañu ndey dinañu gëm waaye bu indee la indi rek ñu weddi war moo tax mu ni fa lamma kashafna anhum al adaba ida hum yankusuun dee na saa yu ma leen teggilee mbugal ma rek ñu nuuraat continuer ci seen mbon ak caaxaan googu ñu nekkoon waaw nuur te rek continuer ndeysaan Moussa moom bawul rek moog Haarun bawuñu di waare bawuñu di wax bawuñu di xuppe saa yu méttee gaa yi saalit mu ñaan yàlla mu baal leen ñu delluwaat si ñi lañ ne woon moom it mu delluwaat ci di leen wax ñu dem ba si yàgg nag Firawna ni gaa yi bàyyi leen ma wax wa naadaa Firawna fi qawmihi na woote ca mbooloom ma parce que xam na ni Moussa mi kat lii muy teg mu ngi commencé leer ci bopp nit ñi te bu leen bàyyee dinañ ko gëm mu woote ca mboo mbokkam ya yépp woo leen bañ ñëw mu ni leen mu bëgg leen def wax ne woon naa la ko ne woon naa la nag toujours diggante Moussa ak na dafa sew xon naa leen ko di la saa yu ñuy waxtaan rek yow di leen bàyyi xel ndax ay jeu de mots la ñuy defante kenn ku ne looy def rek dafa am lu muy teg tegtale ci wàllu communication waaw kenn deful amul kenn ku ciy wax di sànni ci àll bi Moussa du wax di sànni waaye naa du wax di sànni léegi nag fii Firawna mooy wax mais nañu xool technique de communication bi mu utiliser pour jéem a yàq Moussa mu ni mu woote ni alaysa li mulku Misr li mu njëkk a indi mooy moom xam na ni moomul moomul nguurug misra gi waaw nguur moom yàllaa ko moom mu ne ndax man ma nguurug misra gi xanaa du nguur gi sama loxo la ne maay def di dindi may rey di bàyyi nit ñi ñuy dund maay fal may folle maay maay lu ne maa ko yor ma loolu benn ñaareel bi mu ni wa hadihi al anhaaru tajri min taxtihi te dex yi ngeen di gis niil ndox mii daw day daw ci sama ndigal man firawn waaw ci sama moomeel la commencé tiitaru waaw di wane ni ndox bi bu dawee man la te ci sama suufu pale yi lay daw dañ ko xam kon maa moom nguur gi maa ndox mi maa moom nguur gi waaye maa moom ndox mi kon wax dëgg yàlla lu ma neex laa ci war a def mu ni afala tubsiruun ren nag amoon na fa nahrul malik nahru xulóod muy ay xeeti dex yu fa nekkoon macha allah amoon na dimyaat fa la ne woon amoon na it yépp nag boo ko boolee amoon na tunis boo boolee yëpp nag lépp ci niil bi la nekk waaw lépp ci niil bi la nee na loolu lépp nag mu ni leen man mi ko yor man na yor nguur gi dex yi ndox mi di daw ci sama ci sama suufu pale yi waaw loolu lépp yàlla jox ma ko ak doole jooju yëpp afalaa tubsirun xaa yéen da ngeen dul gis firaaw na nii yi xanaa gisu leen loolu lépp ma yor ci ay pouvoir léegi nag wax na boppam lan la jublu ci wax jooju mooy dafa bëgg ridiculiser Moussa mu ne am ana xayrun min hada alladi huwa mahin moo ndax man mii maa gën wala waaju doyee di ji nga xamante ni kenn xamul lu muy wax buy wax wax ji taxawul toogul waaw wax joo xamante ni kenn xamul wax ji wax ci kiñ cakkañ wax ji leerul setul waaw wolof dina koy tekkee layam layam léegi naa leen nag mbóojeen bi moom sonal na nit ñi ba nit ñi defee ni moo moom baatub layam layam muy mbóojeen boobu ba tax na kenn déggatul ci dëkk bi ak mbóojeen yi roqe yi mbooj ngi fii sonal ñu daa mbooj sonal ñu ñeefee soxna Ayda mbooj ñekk fi mboojeen yi sonal nañ ci nit ñi fekke di waxiinu wolof la muy wax ju am solo nag lu am solo la nag nit da ngay fexe di dégg sab làkk daf lay dimbali ba sa kàddu yi ngay génne nga xam ni nga koy génne léegi nag firaaw na ni Moussa mi nga xam ni dafa doye di te sax walaa yekkaadu yóbbiin waxam amul commencement amul daanaka setul sax xaw tuut du man a wax wax ju nit dégg xam nga musa amoon na jafe-jafe ci làmmiñ bi ba bi ko yàlla di yoon yónni mun koo boole maag sama frère Haroun boole maag moom ànd ci liggéey bi ndax kat man damay bañ ñu weddi ma ndax sama làmmiñ mën na am jafe-jafe ci explication moo tax Firawna utiliser lool ni wala yakaadu yubiin moom mii nga xam ni xaw tuur rek du mën a wax moo waxam du leer maanaam waxam mënu la wax lu nit comprendre ya làmmiñam wu fasu yi nga xam ne buy wax doo ko xam xam am na ñu mel noonu mbir ñoo xam ne ni ne bu ñuy wax dangay am problème mu dégg xam li ñuy wax ñuy wax wax ju bari mais pour nga jàpp ci dara dégg ko rek day doon problème problème la problème la ñoo xam ne dañu am problème boobu Firawna nag bëgg jël loolu dëkkale ca Moussa di wane ni Moussa dafa am problème wax kon kii dinaa yem ak moom kii dinaa tëkkale koog moom mu ni fa lawlaa ulqiya alayhi aswiratun min dahabin lan moo tee ñu jox ko ay takkaay yoo xamante ni ci or la ay lamu or ay jaaroy or ay chaîne or ba boo ko gisee xam ne kii nitu àdduna la mais foofu la juume parce que Moussa loolu intéressé wu ko loolu muy wax moom Firawna intéressé wul musa Moussa ak yàlla yàlla mooy war a saf ci moom waaye du àdduna mais gis nga gis nga lii fi mu ne eh, alañ mali fii mu toll nii nit ñi dañ koy dañ koy natte sëriñ ah bo man si waay saway sama sëriñ bi sama sëriñ bi oto bi mu wàcce taa yii sama sëriñ bi kër ga mu tabax sa pour yow pour nga fonk sa sëriñ loolu rek nga koy fonkee yow léegi waaye doo ñëw mukk ni yàlla jama fekk ca moom bu fees dell ak yalla alal ji ko wër ni ko lépp yombe waaye mu dëddu lépp waaye yow lépp ci bakkan nga ko bëgg a teg te la nga bëgg tegal sa sëriñ ci bakkan yëgal ni lu ko gën a yéeme lool am na ñu gëmul daara ñoo xam ni short la ñuy sol ba pare am lu ëpp lool kon Firawna li mu bëgg indi Musa naan lan moo tee comme moom day wax ak di ñu takkal ko takkaay yu yu rafet pour mu doon njiit pour mu mel nii pour mu mel nii aw jaa maahul malaikatu muqtadin wala lan moo tee yàlla indilu indiwul ay malaaka yoo xamante ni yoo ñoo ñooy lënkaloo ak moom ànd ak moom di ko liggéeyal di indi explication firawna lii la naxe wax kër moo tax yàlla teg ci nag ni fastaqafa qawmuhu dafa dox ci xelu mbokkam yi loolu la na def bi mu utiliser baat yi nee na da leen a réeral sànq leen parce que boobu dañ koy waaj a gëm mu xam ne su leen bàyyee du ñu gëm mu ngi mel ni rek kuy laajte nit ñëw ki muy laajte nekk place de l'indépendance mu ñëw ba 2S wala ba BCEAO au siège di laaj yoonu place de l'indépendance te yow xam nga ni. kii fa mu jëm dafa am kum fa ndara ndara fekki te mën na ko lor te yow bëggoon nag bu la neexee te xamul loxo da koy réel sooy waaye <laughs> bàyyi nga yoon wi de place de l'indépendance ku la wax yoon wi la sànq nala la bu baax a baax wëlbatiku tegaat ko yoon wi ni ko gis ni nii ngay jaar boo jaaree nii dem ba poor nga continuer boo demee nga laaj yoon wi jëm grand théâtre su la ko wanee ba boo demee ba grand théâtre laajteel yoon wi jëm pompier bu la ko ne laaj laajal ñoo ñu wax la yoon wa jëm kolobaan bu la ko ne laajal yoon wa jëm EMG gis nga am na yoon wu nekk foofu laajal rek yow péage ba nga tegu ca foofu moo jëm place de l'indépendance mooy yow dox nga ci xelam ba naq ko it xam na ni gars yi jege woon nañ ngëm lool mu xam ni su leen bàyyee léegi ñu gëm rek fastaxafa qawmu mu mu mu mu mu sànq aw xeetam aw ay nitam ndax leen faataaw wu ñu topp ko malheureusement ba mu leen naxee ñoom dañu daanu ci piège topp ko topp ko waaye innahum kaanu qawman fasiqin nee na ñoom day doonuñu daara lu dul ay nit ñu kàccoore nit ñu saay-saay nit ñu génnuk topp moom lañu loolu lañu ñoom ñoom dañoo génn topp ñoom dañoo wàcc yoon wi leen tegoon ñoom dañoo jël ñall wi ñoom dañoo jël yoon wi nga xam ni ku ko mës a jël masoo ci am ndam ñoom yoon woowu la ñu jël loolu lañu ñu tracé loolu moo leen neex ba loolu la ñu topp moo tax mu ni fataawuhu ñu topp ko waaye yàlla nee na innahum kaanu qawman fasiqin mu ni fa lamma asafuuna intaqamna minhum yàlla nee na ba ñu ma mujjee soof waaw xam nga aussi nit ñëw yàlla yabal dawam mu lay waar di wax li muy wax yéen continuer di dëgër bopp di wane ki réewande di wane yu kenn xamul di wane insolence dafay mujj soof yàlla nag nee na fa lamma asafuuna ba ñu ma mujjee soof waxin waxin la mooy bañ ma mujjee sësloo bañ ma mujjee merloo ma jëlal la rek baatu soof maanaam ba ñu demee ba soof ma ci seen melokaan yooya inta xam naa minhum yàlla nee na damaa fayyu ca ñoom du fayyu nag ngeen jàpp ni yàlla day fayonte yàlla ni ma mbugal leen la la la bëgg a wax foofu ma wàccee leen mbugal mu tara tara tar ci seen kaw laa wàcce seen kaw yàlla nee na fa aghraqnaahum ajmain yàlla nee na ma labal leen ñoom mboole seen ndax nee na noonu laa mujjee def ak ñoom rek ndax boobu firaaw naa ngi fi di réewantu di bajantu tey mu ne maa alimtu lakum min ilahin xayri suba mu ni yaa Haamaanu ibni li sarhan dem ba si yàgg ana rabbukumul aala yàlla ne nag mbir yi soof ma ba ma soofee damaa déenal mbugal labal leen ñoom ñëpp nag ca baxru xalsum mu seen alkande fa jaalnaahum salafan wa masalan lil axirin borom bi subhanahu wa taala nee na ñoom de ma def leen muy ñoo xamante ni de ñu am na ñu jiitu ñi fi ñëw ginnaaw gi doon misaal yi doon exemple ci ñoom boo xamante ni ku ñëwati kat di nga xam ni am na ñu fi jaaroon mooy yàlla def lii yàlla def leen lii ak lii ak lii da xam na mu ne noonu laa leen mujj def ba léegi fu nu tuddee firawna sa xel dem ci lab gamu labak na yàlla toroxale na lii amee na lii yàlla nee na noonu laa leen def nee na noonu laa def nit yi nit yi firawna ya ñu jiitu fi ba pare doon misaal ci mbugal mi yàlla di mbugalaate bu ëllëgee ku ñëwate di nga xam ni kat ñoom dañoo wàccoon yoon yàlla teg leen ci yoon mu ne wala maa duriba ibnu maryama masalan yàlla ni ba ma joxee saddee misaal ci ibnu Maryam muy Isa ida qawmuka minhu yasudduun mooy lan nee na ba yàlla joxe exemple ci yonent yàlla Isa ba tudd ko nee na gaa yi nga xamante ni kat ñoo weddi woon dañoo bëggoon a profité ci loolu di ŋàññi yonente bi ak di ko sosal ak di ko waxal lu waxul parce que bu ne lépp lu ni doon jaamu kat loolu ak la ma doon jaamu yépp ay ñooy bokk fu ñuy nekk yowmal qiyaam ñu ni kaa kon xanaa kon ñu doon wax Isa lii Isa la xanaa ñoom it dëgg leen cee bëgg a boole mu ne déet Isa wax ko di moom yoonam newu ci moom yoonam newu ci kon nit ñi bu lay dugal ci lu dul loolu bañal mu tax mu ne boo masee joxe yonent yàlla Isa indi ko ci alquran sax war nga wax mbiram ñoom dañuy jéem a yuuxu ngir nëbb dëgg gi ngir sànk li ngay wax ba kenn du ko dégg wax waqaalu nee na du ñu yem ci lool waaye dañuy toog di wax seen wax yu doy waar yooyu ndax kat li yàlla waxoon nag innakum wa ma taabuduna min dunillahi xasabu jahannam ñoom si loolu lañ doon wax naan ah kon daal da ngaa bëgg ne Isa ak ñi mu ko toppoon ñëpp ñoom ñëpp dañuy dem safara loolu nga bëgg a wax jàllul jàllul parce que Isa nanguwul woon Uzayr nanguwul woon kon loolu ñeneen la waaye ñoom nanguwuñu woon loolu waaw moo tax ñu ni dafa am benn benn yéefar bu bon dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ko dama lay laaj yaa ngi nag ci wetu kaaba gi ndax nasaraan yi jàppuñu woon ne Isa seen yàllal ndax yahud yi jàppewuñu woon Uzayr loolu ko ñee jàppewuñu woon ni malaaka yi seen yàlla lañ mun ko bu fekkente ni yow li nga wax dëgg la kay baax na xen kaana haulaay fi naar faqad radina an nakuna nahnu alihatuna maahum bu dee jàpp nga ni ñii ñëpp safara lañu jëm muy Isa Muusa malaaka yi ñun amuñu problème nekk ndoo fa ak ñoom lii la ñu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog ab diir noppi di xaar wax yu waaw ñoom ñëpp ñu ree ko ba defee ni am nañ ko ba commencé di yuuxu di ko di ko di jaxase wax ji di bi waaye yàlla yàlla ñëw ni ko du noonu de moo tax yàlla tuddal ko li ni ko nee ko ñee leen ñii ñuy wax bu leen nit di jàppe woon yàlla ñoom jàppewu ko seen bopp te nanguwuñ ko woon wa ñun ko a alihatuna xayrun am huwa ma bu lak waaw yow ndax ñun suñu yàlla yi ñoo baax ñoo gën wala yii nga fi doon misaal rek ba ba leen di tudd moo gën waaw amhu waxal dañoo bëgg wax ji leer ñoom loolu la ñu wax Moussa ni ko yow Isa loolu la wax yonent bi alayhi salaatu Isa moo gën wala suñu yàlla yàlla yàlla nag ni ko maa darabuhu laka illa jadalan gis nga lii ñuy wax saddalul la misaal ci loolu ngir bëgg daara lu bëgg werante rek xam nañ bu baax ni li ñuy nekk ak li ñuy wax ay tappale la waaye dañ koy def ngir ngir rek bëgg am dëgg sa kaw bëgg a tappale ndax li war a loolu mooy balhum qawmun qasimuuna ñoom nit lan ñoo xamante ni ñu bari xulloo lañ bari dagge bari histoire ñoom nit ñu bari xulloo lañu nit ñu bari dagge lañu nit ñu bari histoire lañu moo tax ñu lay jox misaal bi waaye jublu werante lañ ci jublu waaye xam nañ ni sax li ñuy wax li ñuy wax c'est pas ñoom xam nañu bu baax ni li ñuy wax nekkul te amul solo waaye comme dañoo bëgg a weranteeg yow moo tax ñu indi wax jooju yàlla ni ko nee leen in huwa illa abdun an'amna alayhi nee leen yàlla isa mi ñuy wax xamal leen ni isa jaamub yàlla la boo xamante di kat yàllaa ko bind yónni ko jox ko ay xéewal nag wax dëgg yàlla dooy na sëkk xéewal Maryama di sa ndey doy na sëkk xéewal nga di di wax doy na sëkk xéewal yàlla yónni la def la yonent doy na sëkk xéewal yàlla yëkkati la yóbbu ca boppam yooyu yëpp isa na ci mun ko ne leen isa jaam la rek comme jaam yëpp waaye ana am naa alayhi yàlla nee na maa ko xéewalal def ko yenent daf jox koy xéewal yaatoo yaatoo yaatoo man wa jaalnaahu mathalan li bani israil mu ni nit na nga xam ni man maa ko def muy misaal doon exemple boo xamante ni ci ni ma ko bindeek fi mu jaar yëpp muy exemple ci waa banu israila ci xale bu ñëw am ndey amul baay yàlla ni walaw na shaaw su ma neexoon la jaal naa minkum malaikatan fil ardi yaxlufoon nee na su ma neexoon yéen nit ñi ma jëlee leen fi indi woon fi ay malaaka yoo xamante ni kat dañuy nekk ci kaw suuf si ba pare di fi wuutante nag ñii di dem ñii di ñëw su ma neexoon noonu laay def yaamuruuna al arda badalan minkum ñoo xam ne ñoom bu ñëwee dañuy dindal suuf si wuuteeg yéen lool ñëw wuutu leen fi ba pare di wuutante yow seen biir su ma neexoon ma def loolu jële leen fi yéen ñëpp waaw ñu am di ay malaaka yoo xam ne ñoo leen fii wuutu waaye loolu neexu ma mooy tëj wax ci loolu neexuma lii moo ma neex mun leen nag wa innahu la ilmun yàlla nee na xamalal gaa yi ni leen lii xam-xam bu wér la ca saa muy àdduna bu tukki ba fala tamtarunna biha bu leen ci werante yonent yàlla isa mii mandarga la buy wane ni kat saa léegi mu taxaw abdullah ibnu abbas nee na inna xuruja isa alayhi salaam min alaami saa mandarga la bu leen jàpp ni mukk leneen la moom mandarga la boo xamante ni li muy wane mooy saa dina am àdduna dina tukki fala tamtaronna biha bu leen werante ci ay mbiram bu leen werante ci di ñëw gi isa xam-xam la ak mandarga buy wane ni àdduna ngi tukki wattabiun topp leen ma man yonent bi alayhi salaatu wassalaam hada siratu mustaqim sadaqallahu alazim mun leen lii mooy yoon wu jub xocc wi suñu boroom tëral lii laa leen sant lii daal mooy li ma leen sant mooy li sama borom santaane te mooy li gërë gërëm ngeen xam ne Isa daal mandarga la buy wane nii kat àdduna buy tukki moom dina dikkaat yonent bi wax na ko yushak an yunzal fiikum Isa ibnu Maryam hakaman muqsitan du amul lu werante ne Isa dina fi ñëwaat doon attekat bu maandu boo xamante ni ku newul ci dëgg rek dina la ci jëre yàlla ñu yàlla defal dégg yàlla ñu yàlla defal topp aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iri almuslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh